pour dimanche passé seetaan nga làmb ji image yi ñu gis xale yi di jël ay siège di ko sànni di ko yàq mu doon am ñu bëri ñaawlu nañ ko looy wax ci loolu ñaawlu nañ ko moom ñaawlu nañ ko mais man euh, man man depuis ci au bi man dama bañoon siège yooyu foofu gis nga wàllu gëb la aajiwul ay siège man dama jàpp ne bañ koy def dañu ko may noppaloon na sax ñu koy defar ñu bañ faa teg ay siège foo xam ne dañ fay taxaw ko euh, nu mu aju yi fa lay nekk gars yi dañuy fecc pour man loolu xaju fa man sama gis-gis man da bu doon sama sago seize yooyu nañ ko waaj nañ ko wekk ba bàyyi fi VIP yi parce que VIP yi doo fa gis ñi sànnante ndox doo fa gis ñi ñiy xeex doo fa gis ñi def benn ko wax loo xamante ni rek affaire connerie la wala affaire loo xamante yàqul day saboté du dëgg nañ jël seize yooyu dindi ko te jéggal leen nañu koy def seen mental fa toll waaye nag na CNG bi génnee wax li nga xamante ni bu ëllëgee bu ko keneen defee lii mën na ko ci fekk. CNG ñàkkul dee mbër bi la ñu sonal. te mbër bi deful dara mbër bi daa daan rek toog wala sim deful dara xaalisam la ñuy yàq yàq carrière am te dara du ko dara dara day métti ci moom mais man da wax dëgg yàlla li may ñaana mooy siège yooyu côté yooyu wallaay lazim nañ ko fi jëlee te ko fële toog noonu moo gën a sakkan toog boobu mu ëpp ambiance toog boobu moo ëpp jàmm ndax kenn du xeex ba dindi siège wóorul caatnu ni mën na fa xeex dindi siège bi dóor ko nit bu deewee kuy perte yàq siège yi am na fu mu xaj mais ça ñu dëgmal ay bis yu mag yoo xam te ne ci wàllu sécurité aussi ñu bëri dañ ci euh, am xaw xel ñaar est-ce que jotul ñu dépassé mentalité yu mel nii. sécurité yi moom bu gaston bi la keroog damaa moom ay civil yoo xam ne may jékki ji gis ñu mënatu benn waay romb ba ne waaw man toog nag nit nekk de civil la dafa jékki-jékki jug dem jàpp benn waay ma xool ko ay rey jàpp ma mais ñi tëgg laa mu tamit nañu wut sécurité yu doy nañu wut sécurité yu doy parce que da ngay bëgg benn tëgg benn combat finance yi benn nga dem jël benn dix sécurité teg ko fii nga naan ay liil non non non sécurité du ci biir cercle di dong déedéet ca kaw war na nit jar na mbër yi kenn ku ci nekk sa supporter nga lance leen message ni lii defal leen ma ko lii bon leen ma ko defal lépp yi yàq-yàq rek bu la ko benn supporter defal xam nga mais tamit il faut ñu comprendre leen daxam xam ne ndam des fois da koy am ba looy def doo ko tey doo ko sa yëg